mbokk yi suivre Lutte TV point com ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokk internet di leen ñaanal jàmm ah. ni ngeen ko xamee nag Lutte TV la ak làmba ci la ñuy dox suba ak ngoon Lamine la ak Babacar tey nag dañoo ñëw fii pikin li ñu fëndi nag mooy làmb làmb ju nga xam ne ay espoir ñoo ko war a bëri espoir yooyu nag ku ne xam nañ leen bu baax a baax si làmb waaye li ci bees mooy ki ñi tëgg làmb ji wala ki ko tëgg muy ñu ngi production kooku nag suñ ko waxee idaala ñu ngi la ñuy ak ay doomu ndayam ñoom Baba Diaw Amdi Moustapha ak Abdoulahat Ndiaye wala sax bu la neexee nga ne les jeunes amateurs parce que olof ne na ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi moo tax ñoom itam ñu bëgg ñëw rek yokk ci làmb parce que promoteurs yi lu ñu bëri doyut parce que mooy tax mbër yi mën a bëri loolu nag moo waral te ñu ñëw fii di ci nuyu ku mel ni Saliou ba moom tamit nga ak gars yi amateuru waaye li neex mooy ñi ñu boole ki ngeen di li ngeen di jàpp mooy wala li ma leen di jëkk wax mooy kii mooy mooy Dame Suguer numéro 2 nekk Rock Énergie topp ne ci ginnaaw Modou Lo ka ca nekk ka topp mooy ki nga xam ne mooy Fourrière bu Grand Yoff moom tamit di poulain wu Zarko te yaakaar naa Zarko Modou loo lépp ñoo ko bokk ci làmb waaye leneen la ca gën a neex mooy Boy Bawol numéro dë ak ki nga Boy Bawol parcelle lay wareb dóor dóoraat ak kan ki nga xam ne nii mooy albarka kay daam maa lay ziar daam su numéro 2. waaw ñu ngi lay delloo ziar sëñ Babacar di nuyu ñi fi ñi ngi fi fekk ñëpp di nuyu suñu nijaay ak suñ papa yi ku mel ni ñi ngi production ak estafam di leen ñaanal ñoom ñëpp di nuyu monde entier waaw di nuyu ñi fi ñëpp di nuyu suma adversaire Fourière di nuyu ak ñi war a bëri grand combat ku si mel ni Boy Bawol ak Albarka di nuyu ñëpp daal di nuyu waa Lutte TV yëpp tamit. xam nga Fourrière. Fourrière waa xam naa ko nii si làmb rek. fu fu si noo ko xamee ci làmb yow. Fourrière bokk nañu bëri mbapat sax maa moom muy mooy bëri premier combat bi ci journée bi moom mu bëri avant grand combat bi su ko fàttewul man fàttewu ma ko. foofu loolu fu mu amee woon. parcelle la amee woon. jël yi nu mu demee woon. non man moom maa daan mais moom seeraan moo làmb man après damaa génn mais moom it yaakaar naa moo daanoon waaw. Hmm. loo gis ci moom ci wàllu bëri. waaw làmb ñu nar a neex la rek ndax ñun ay xale lañ te dañu war a bëggal amateur yi te ñi ngi comme promoteur bu bees la nañ ko wane daal incha allah daam su gën war a dëgg kenn du tëgg laa moom di ko rëccu incha allah si yaa Fourrière ku dàq bëre maa ko dàq bëre ku ëpp doole maa ko ëpp doole ku dàq maa ko dàq lépp ba keroog laa mujj di jàll poulet wu loolu làmb la rek ndax Modou Lo ak Zarko ñoo seq li ñu seq mais ñun xam nga ku nekk day yuuxu jëm sa kër baay di ñaan yàlla suñu borom may ñun daam la Fourrière jaar naa la maa ngi delloo jaar bu wér grand bi Fourrière ku ko wax moom defe fa la tëj oto yeeg ñëwaat ci yoon yi fa lañ leen di dugal Euh, avant tout onge bi la bisimilah na yàlla sant ñu fi teew ñëpp di di juutal si nuyoo bi nag zalba bi ku ñaax keeñaan la te boobu ba léegi mu ngi wax si man ak sama combat te boobu ba léegi ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul kon que kii tamit promoteur bu bees la muy ñi ngi production ñun ah, taxaw nañ tey jii pour jàppale ko moom it mu jàppale ñu si lu ñu bëgg. bëri nga fa avant grand combat nee na jour boobu yéen a ko bokkoon waaye loola moom c'est déjà passé mais li ñu ngi def tey mooy wax ji coow li mooy ndax xam nga Dame Souguer mii. non dëgg-dëgg xaw ko nag. ba pare ngay lekk avance am. waaw ah, mais contrat la boo xam ne man ak Zalba ñoo ko signé rek. te tamit euh, mbër bu ma respecté la man man nekkuma di kii comme ça di minimiser adversaire quoi sama adversaire ak nu mu munti doon dama koy jox cër bu mu mat sëkk. voilà mais wax dëgg su ma waxee dëgg moom maa ngi koy soog a gis quoi. Zalba moom joxe xaalis la man fi la ay combat waaye yéen ñaar li ngeen war a seq fa moom yoonu Zalba xam naa du fa bëri mais li ma lay laaj mooy dama ko ko laaj ku dàq bëri ku dàq xeex na lépp moo la ko dàq. non mais man sama combat boo xoolee man ñu seetaan sama combat ñu xam ne man lenn laa man bu abi sufle damay def lu ma war a def yëpp ba keroog yàlla di ñëw moom moo dàq bëre dàqul bëre yooyu yëpp jour boobaa dina leer quoi. waaw comme li ñu leen ko waxee nag ak njëngi production li ñu leen jëkk woon léegi mooy Fourrière ak Dame Suger boobu mooy combat spécial bi bii nag mooy grand combat bi kii mooy bëre grand combat bi mook booy bawal albarka naa la. waaw euh, aouzu billahi mina sheytaani ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi maa sant samay ñaari weeju di sant sama sëriñ di ñaanal ñi sangoo suuf yëpp yal na leen yàlla ñi feebar yal na leen yàlla may tan ñi nga xam ne caabi da leen a féete ginnaaw yal na leen fa yàlla génne di nuyu ñi fi nekk ñëpp. waa bu jour baa bu ñu yegsee ñëpp ay xam ne ni incha allah lii bokkut ak yeneen combat yi. ñu ngi production moo la njëkk a tëgg grand combat léegi nag nga war koo seq ak booy bawal numéro 2 bu. parcelle mbooloo wala bu dóor dóoraat du moins. waaw. est-ce que xam nga booy bawal. waaw man booy bawal mu koy dégg nii rek. bilaahi xam nga waaw. xamoo ci moom dara. non dama koy gis des fois mbapat muy yaayu xam di jaayu waaw. mais dara man gëm naa ne lima fi ma jaar ak li ma daj moom dajagu ko ci làmb waaw wàllum bëre dóor man li daj waaw bu dee mun na dóor mun na encaisser mun na bëre mun na leneen man gisaguma ko ci moom te incha allahu rabbi bu dee dañoo jàpp ni yoon la man du ma yoon du ma yoonu kenn du ma may kenn lenn yaawi bi nga wax kuy yaawi di sinkale koo ko defee affaire lan moo koy lan moo koy faj waaw foog ne moo mun ñëpp rek ak yu kenn xamul li koy faj incha allahu rabbi jour ba lay leer man caaxaan taxuma dugg ci làmb gis naa sànq ba tey mu lay xool de di la yër ndoo ka reetaan ak xam nga kii fu ñu dajee daf may jéem a may dékku des fois ñu daje mbapat xam nga mu may jaay yooyu noonu mais man damay ree dee ko ci biir parce que man xam nga rek dëgg la xëy na ni dina la bàyyi xel yow doo ko bàyyi xel mais làmb buy neex la ñaari xale la faa mu neex. Ah, njool njool la de. njool la de. waaye man <laughs> man faale loolu noonu. gis naa ko muy bëree bot. dégg ma xoolal dugg naa fa mu ne. doo dóoraat. te deuxième fois ba nekk nii bu soobee yàlla. mas nga fa dugg am fandam koo fa <laughs> Sénégal xam nañ ni bëri naa fa ak dañuy dóodóoraat <laughs> du am dara man du ma yoon loolu rek laa koy dënk. kon da jàpp ne gars yi maanaam dañ koo déy ko aw yoon nga. <laughs> la waaw macha allah xëy na xaw na si ak yooyu noonu xam nga boo nii la non loolu amu fi de. fii lu métti la fii fekk man poobar laay sulmoo kaani laay ndekkee acide laay sangoo jaasi laay bomboo lamset laay waxotoo dilian laay gàllandikoo lamin lii nar na man de kon jege bi ma la jege mbaa wóorati na naa teggi sama loxo man ma ne dinaa ko jox boisson boo xam ne dina ko sangoo force te bu ko sangoo di ñor bañ bañ bëgg la te dina ko sangoo booy bawal dëkk nëpp ko problème moo ko waa dóor dóoraat waaw hmm, ah, baax na dóor nii yëpp moom est-ce que xaj na ci nit déggoo kii guux laa koy def ci kattanu yàlla suñu borom maa ñaan yàlla yàlla may ma ndam ci kaw Boy Baol 2. Boy Baol ziar naa la. daloo ziar Babacar di la bëggee xam nga di wax auzu billaahi mina seytaani rajiim rek bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm sama ñaari waajur xam nga di ñaan sama papa ak sama yaay yëpp yal na yàlla yërëm te xaaral àjjana xam nga. Mhm. bii mooy sa premier grand combat. waaw bii mooy sama premier grand combat di ñaan yàlla mu suturaal ma comme que yàlla mooy borom sutura te xam nga te mooy maye maa ngi ñaan yàlla may ma ndam mu sedd guy ci kaw albarka kayre mais dégg nga li mu wax de li mu wax moom yaa ngi toog mu ngi toog kenn du la ko jot li li mu wax lépp ne moom la boole moom boole ko moom jëm ci kaw nit est-ce que loolu dina wóoral ci yow Babacar garab buy daanu coow day bari trop mais ñax te ñax buy sax nga ne garab nga ne garab buy daanu coow day bari trop te ñax buy sax kenn du ko yëg te pourtant moo ëpp importance ci jur gi albarka kayre dama ko bëgg a xamal lu muy wax nii rek di xëcc du ñoddi bu buñ ci demee man ak moom mu bàyyi mais comme que nag nee na jaar na fu metti ci làmb loolu moom moom la man li ma concerné man ah, ah albarka kay bu at bi soufflé dina xam ni fi mu jaar ak man fi ma jaar moom moo ko xam bu ñuy bëree làmb place géej di ko jël duggaguma sax ci làmb sax xamul ma la kon man awma leen lu ma koy bàyyi xel xale la may entraîné topp samay ginnaaw mag ñoom góor ñoom soog di entraîné guddeeg bëccëg ah di liggéey kon amul lu may sóoraal ci albarka déedéet xamal laay ñaan yàlla yàlla suturaam naa ko jox cër bi moo ko war a jox nag nee na yoon la da ngaa jàpp ne yoon la yow yàgg ñi àndal waaw loolu la wax nee na man damaa jàpp ni man gaa dañ ni yoon la damay ñëw rek jàll du yoon góor sa moroom góor yow doo lii su ma la jàppee di nga rasu di nga rëcc doo lii mën naa ko jàpp manipuler ko yóbbu ko mais yow mënu ma laa def loolu kon mu xam ne combat am naa fu ma ko teg sama premier grand combat ñu ngi production nag buñ ko waxee comme li ñu wax Idaly moo nekk si bopp bi ànd ak ay doomu ndayam ñoom am deeg ñoom Baba Diak ñoom Abdoul Ahad waaye Saal ba tamit yaakaar naa menacé la nekk entraîneur Saal ba lan mooy ñu ngi production ak lu boole Saal ak ñu ngi production. jërëjëf Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Lutte TV yëpp di nuyu ki nga xamante ni moom mooy Idaly Abdoul Ahad ak gars yi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ndax ñi ngi production da gis Saal ba gis euh, ki nga xam mooy Idaly waaye ñi nekk ci ginnaaw moo ëpp doole fuuf. ndax lii bi ñu koy taxawal metti woon na trop ndax ku ci nekk bi ma dalee wootante ak mat na un mois ndax euh, bëgguñu combat xale ak mag ñaari xale la ñuy boole. te dafa nekk euh, maanaam euh, maanaam ñuy soog a jóg ñoo xamante ne nee naa la xale bu juddoo day jàng toog jàng raam jàng jóg taxaw jàng daw ñu ne fu mu dañoo jàng dañuy jàng toog moo tax xale yi nga xam ne dañoo nekk nouvelle génération ñu ànd ak ñoom jóg dem. parce que duñu fekk ñu ñu ëpp ay expérience ndax promoteur yu bari leen daaneel mooy fekk mbër mu mag moo xam ne moo la ëpp expérience nga ñëw di ànd ak moom ñun nag ñii suñu génération la ñoo fas yéene ànd ak ñoom yóbbu leen foofu te yàlla na ko yàlla def idaal yi yàgg nga ci làmb di amateuru làmb mais tey nag da nga dikk ak beneen casquette ginnaaw bu mu la nuyu ziar la casquette promoteur tey la ñu gis waaw ah, onze billahi mina seytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonente di nuyu sama ñi nga xamee ne ñoom la àndal ci liggéey bi ku mel ni Baba Diaw Abdoulahan Ndiaye ak Moustapha mi di nuyu Saliou bu baax a baax moom mi nga xamee ne lépp moom la daal ndax mooy taxawal combat yi lii nag dañ ne dañuy def suñu la lancement rek mais am na yeneen combat yoo xam ne incha allah lu yàggul dara dinañ ci dox te saa su ne luy yokk làmb moom la ñu ngi production ñëw andi mënuñu dara nag waaw dañuy jàng rek comme dañuy topp suñu ginnaaw mag ñi ku mel ne ñoom Fallou Ndiaye ñoom Assane Ndiaye suñu magi promoteur yooyu daal ñu ngi topp seen ginnaaw rek di raam to ah, simla